ginnaaw bi ndigal li tukkee ci xalif général kullu murit di sëriñ Muntaxa Bachir ngir ñu ubbiwaat jumaa yi tey aljuma ji yamok fukki fan ak juróom ci weeru mai di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru koor daal nañuy julli waaye teewul ba tey ñuy sàmmoonteeg mesure barrière yi waa ministère de la santé et de l'action sociale digle ngir ñu moytu jàngoro ji di coronavirus comité bi saytu lépp lu jëm ci jumaa ji di daayiratul muxaddimatul xidma daal di nañuy sàmmoonteeg ndigal li ba tax lépp lu wër jumaa ji ay ndoxu raxasu ak gel antiseptique di set setal di pompe ak di respecter distance bi Maxtaar Kan yore communication wu boobu boobule mi ngi ñuy xamal. jumaa ji moom mos tëj moom mos tëj tëjutoon naka jekk tëjutoon waaye comme que daa am ab xew-xew bu am fu ñu jaar xew-xew ni mu laaj ñu wàccoog moom. ginnaaw ma ko xamoon léegi rajo bi biñ jaaree fi ñu war a jaar ci wàccaay yi nga xam ne moo am avant ñuy dugg ci corona bi ñëw Sénégal def lépp ngir wàcceel suñu suñu membre ngir bu ñëwee feer bu duggee xam nañ Sénégal bu duggee Sénégal moo ñëwoon Touba ndaxte ñu bari ci nit ñi bu duggee Dakar rek Touba lañ si pour si ñu ne kon nag nañ wàcc suñuy membre ba ñoom ñëpp ku ci ne xam. li xew ni mooy lan ak ñu koy moytandikoo def nañ ci ay liggéey yu bare bari nag yu yu yàgg-yàgg ba agsi ci ba président waxee ne ñu wàññi mbooloo ci jumaa yi ak yi mu àndal ci ay wàllu misiri juróom mooy ak bi njëkk ci jooju daayira bi taxaw ci taxaw bi am solo former ay membre am pompe jumaa ji infecté ko wut ay zel jox membre yi topp nit ñëpp ku ci ne fi ngay duggee boo duggee ñu laal la alkosal takk loola masque sori la sàpp si ba tey jii nii ñu nekk ci jumaa ji suñ joxe ndigal pour ñu gën a yokk mbooloo mi donte jumaay Tuubaa mosu tëj moom waaye dañ koy joxoon ndigal ci ñu wàññi ñu fay jullee rek nekk waa daayira bi ak waa ñu fay liggéeyee tey jii nag mu nañu na ngeen am ndigal ci yokk jotaay ba gën koo saytu baax nag ànd ak loolu tamit jox ñu ay ndigal ci sàmmonteeg diine ba diine wax ñu def ko sàmmonteeg tamit kër docteur moo tax mu nañu na ngeen jéem ba loolu tamit am bi ñëwee ñu waxtaane ko tënk ci ay point te mooy yi ma bëgg wax ni mooy bu njëkk ñu ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw jumaa ji boo agsi ba ci buntu giri bi bi ngay duggee jëm ci jumaa ak fa mën fa mën bàyyi ko boo ñëwee nga laal ordre de Joël raxasu ci wala boog nga laal alkosel ci say loxo takk sa masque takki nu jaar yoon wala boog nga yor kaala kaala woo kaala gu jaar yoon te bañ ko dindi li feeg génn jumaa ji dolli ci boo agsee ba ci biir jumaa ji fi ngay sàppe mu nekk sàpp soree ba nga ba nga ba nga loolu ci la bokk bokk na ca bu ñuy génn ñu génnandoo génn boo xam ne du am buuxante wala raj ajaloo wax naa ci dugg bi wax naa ci génn bi dugg bi mooy li nga jàmmante buntu bi muy laal laal bi wala alcosel bi takk masque wala kaala sa soroy sàpp si pare booy génn tamit nga sàmmanteeg génneen wu jaar yoon mooy bañ bañ a njëkkante baa buuxante loolu mooy njëkk li gis mooy bu fekkee ne ñu jumaa ji jumaa ji fees ndax jumaa ji tamit ni ñu ko programmé bu feesee tamit day jaar ki la xam na dàqu la ñàkkul la fayda manque sa respect waaye norme bi nga xam ne nii moo teg leen wax ci liggéey bi lay ñu respecté rek moo tax kon bu jumaay fees bi ku ne fees tamit ñu déggante xam ne jumaa tamit kenn kenn tolale jumaay kenn tolale fekkee fees na da xam ne fees na rek nga jëfandikoo ndigal li beneen yoon lii daal mooy li nga xam ne nii suñu newoon na nañ ci taxaw lef ko ñun nag bu ñu xëyee tamit ñu gisee ñu xëyee dafa xëyoon pompe jumaa ji teg ay nit ci bunt yi jox leen allusiol ak alkosel jox ay masque jox leen tamit ndigal yi buntu ba dugg da fekk ndigal lii nga xam ne nii moom la suñu wax ñu bëgg rek ñu giris ñëpp ñu sàmmoon teg teg teggini jumaa ji ak warma ji ak sart yi ñu teg na mooy tax ñu ñu ñu soy jàngoro ji ñëpp góor góor góorgóorlu ci ndax jàngoro ji ma defa gara jàngoro ji li fekk génnu Sénégal gii génnu àdduna bi lu bare bare dana taxaw social bi amoon diggante nit ñi dana wàññeeku sama sa mbokk dana faatu doo mën ñëw doo mën a dem da nga am sa mbokk am ngénte wala kéet doo mën a dem danga am soxla sa Ndakaar doo mën a dem danga nga bëgg a liggéey doo mën a liggéey yooyu nag xeex ku mu jeex benn yoon daa gën lépp kon ñu ngi taal loxo ñëpp rek ñu wuyoo sart yi ak teggin yi ak warma ji bàyyi njëkkante beeg yu xoloo beeg dàq beeg yooyu amul solo leen solo mooy def jëf ndigu si mu solo yàlla yaa mi def di ko topp ban def ko ni ko sëñ mbogee du am taaliba yi seen yéene ëppoon na lii waaye li ñuy wax murit ndigal ba tax ñu respecté distance un bi ba loolu moo waral juma ji feesul ni daan feesee ndax Covid 19 da koy tere.